sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain awnaka ya muayinu bika nastain wala xawla wala quwata illa billahi al ali al azim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaanal cheikh muhammadul muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko da naal yi mu naalal lislaam yépp màggale ko di nuyu kilifa yu baax yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi di jël nuyoo yi ak ziyaar yi di ko teg ci loxo Cheikh Ahmadul Fadil Mbakke moom Serigne Baara Xureja dinaa bu ñu ko ñaanalee yàlla yàggal ko te wéral ko ñu teg ci loxoom nuyoo Serigne Cheikh mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu sëriñ Baara di nuyu daayira bi yi nga xam ne it mooy sëti sëriñ Baara Xula ji yi nga xam ne ñoo woote jataay yu am solo yi ngir waajal ci bis bi nga xam ne dañu ci fàttaliku bis boobu ñuy defal sëriñ Baara Xula ja ñu di leen ci ndokkeel di leen ziyaara bu baax nuyu bokk yi ñu bokkal jataay bi sëriñ Moustapha Dieng Cheikh Abdoul Ahad Bousso noo ngi leen di nuyu bu baax xam naa jataay bi wax naa ko léegi Cheikh Abdoul Ahad tomb bi maa ngi door ak si léegi door a dégg tomb bi lu am solo la damaa ne woon ci bi nag di wëndeeru rek sëñ bi nee na ma ci kër yi ma ne woon ci kër yi boog wala ci tool yi moo tax booba ba léegi Cheikh Mourtada mii mi ngi jokkook man waaye xam ngeen ne ab taali bi moom amul moomul boppam nii nu kilifa yi soxlaa nu wuy si rek yeneen kilifa dañu koy soxla nu mën a wujji mu mel ni dañoo wax tomb ba am solo xam naa muy jëmmi dundal suuf waaye nag jël ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaam jël ci misaal mi Serigne Bara Khourédia dundal suuf moom defe naa yaatu na ñu def bari na hectares yi bari na ñi ciy bayeek def lu nekk bari na waaye defe naa am na lu ëpp solo loola ndax nit dana góorgóorlu ba dundal suuf waaye bu tabaxul nit ku suuf sa it bu boobaa suuf sa du amati njariñ waaye ñoom lan moo leen taxoon di dund suuf wax ngeen ci aaya boo xam ne dafay tegtale bi ci jëkk mooy sos gi yàlla sos doomu aadama borom bi subhaanahu wa waaye nag sos gi lan moo tax mu sos ko jëkk muy wax ne ma sos doomu aadama wàcc ko ci kaw suuf ngir mu dundal ko dafa wax ne li tax mu bind ko mooy lan mooy mu jaamu ko kon am na lu tax mu wàcc ko ci kaw suuf ngir mu jaamu ko nag dundal suuf gay tax jaamu gi mën a wér ngir béréb bi muy jaamoo yàlla ak façon yin wi muy jaamoo yàlla moo cay mën a feeñ benn nit ki béréb bi bi abi dafa am lu muy joué ci nit ki bëgg a nit sax dafay laaj mu am bi a tarbiyé boo xam ne te lay tàggate nit ki waaye nit mën naa fekk benn béréb rek ñu ne ko fii 1000 hectares la wala ëpp na ko mu investir fa loo xam ne la cay bàyyi ko lépp merom yàlla lay jur kon ma ngay dundal soofus dundal ko ci benn donn ci ay maam wala donn ci ay nangam waaye lan moo taxoon sëñ baara moom di sañ ci ay suuf wala lan moo tax maam borom saam sañ ci ay suuf sëñ baara ñëw dundalaat yooye suuf loolu mooy solo si jëkk feeñ mooy sëriñ Touba moom de bim mu sañc ab dëkk muy ñaari dëkk yi mu jëkk a sañc muy tuuba ak Darou Salaam dane li maa ngi li tax ma Touba ak Darou Salaam gënal ma ci dëkk yépp mooy yéene cosaanu li ma ko sañc na sañcuma ko ngir commerce sañcuma ko ngir yaxantu sañcuma ko ngir sàmm wala bay dama ko sañc ngir jaamu yàlla kon defe naa jaamu yàlla ko tax sanc yooyu dëkk sanc googu muy sanc euh, di jaamu yàlla it moo tax gis nga bi muy wax daaru salaam rabbi biha min al wara maa laa yuab yaa xayra man rabba wa xayra man waad bi mu sañcee tuubaa yi li mu jëkk wax xam nga da gis koo xam ne day ñëw ne investir na lu bari ci ay suuf waaye daf ma tax a am développement nangam wala nangam sëñ Tuubaa nag moom bi mu sancee lu mu wax alhamdulillahi alkarimi dil minan alshiraali bi furudin wa sunan shakartuhu li annahu qad saqani li bi bihi na maaqani maa ngi sant yàlla ndax daf ma indi ci suuf soo xam ne moo ma tàggaleeg lépp lu ma doon gàllankoor moo xam ña ko doon yóbbu ci ak wax leneen ak wax leneen ba tax loolu mënul nekk kon dafay am lu tax nit a sanc defe naa tey ji tey ji am na ñooñ bu doon ci àdduna rek tey boo xoolee óolu jam ñaajo bi defe naa ab àll la woon te gis nga ni ko dundale ci ay taax ak i nangam ndax des na ko donnante ci man caa tabax nit wala defar ko ca déedéet kon lan moo taxoon mu jóg mooy nit ki ñoom dañ daan am lu leen tax a jóg ab jullit bi nga xam ne dafa jóg boroomam gàllu ko ak topp ko li ñuy jëkk a def mooy nit ki mënta ak jaamu yàllaam sell te mënta te jëfandikoo wut lu lew mënta nekk mënoo jaamu yàlla jaamu gi ñoom nag bu nu sancee béréb ñett tey tax ñu daan ko sanc bi ci jëkk mooy li tax yàlla wàcce leen ñu matal ko te mooy jaamu ko ba ca topp mooy fexe ba mën fa tàggat aw nit ngir mën leen a defar yar leen génne leen ci zulamatul faqri wal jahli wal kazal mën leen yóbbu ci nuurul imaani wal islaami wal ihsaan waaye it fexe ba mën a rawale seen diine nga xam ne dañ daan tënku ci la ñuy nekk da leen di yóbbu ba li ñuy tuddee mën a yaxar yàpp wala mën a nit mën la koromp wala nangam looloo leen ko mayoon moo leen juraloon barke bu toll nii tey buñ nee sëñ Baara Xuraji wala sëñ Mamor Jaara borom Sàmm borom bu san nit dana nekk ab opérateur wala mu nekk koo xam ne économiste la mën a am wërsëg te bu buñ doon xool tey ci du gox bi li sëñ Baara Xuraji réussir réaliser ko dimbale ko ci nit tabax ko ci aw nit kooku du ko mën kon loola dafay am lu tax nit ki mën a jóg mooy tax ba fexe ba saxal li leen doon wàccee ci ci kaw suuf ndax ngir ñu mën a egg ci al yaddul ulya xayru min al yaddul sufla aw ngir loxo bi ne ci kaw aji koy laaj rek la bi ci suufam mooy laaj bi ci kaw mooy aji kiy joxe ku ca bëgg a génn nooy def bu doon ne àdduna la ñu ne kon nit ki kat investir na góor góor na am na métier industriel la nangam nangam laa daara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha ila allati kaana qabla al mawti baaniha fa in banaha bi xayrin taaba maskanaha wa in banaha bi charrin xaaba baniha tey am na ko dundal na ay suuf waaye la ko ca fekk ci bakkaar ay otel la investir ay fawukaay la investir ay stade la def jëf jancee jëf tem di safaan fu koy fekk ana ki dundal suuf lu tax benn mbaar mi ni jàngee alxuraan gën pakk yi ci kaw suuf doon ko ne jàkkalaa ki juma wa ma fi l ardi min boqaatin dadal masajidi ahabu ila allahi min boqati yutla fiha alkitab ñoom bu ñu ñëwee dañuy sanc sanc kër sëñ baa ngi daara jàngi jàngu baa ngi ngir ñu dundal suuf mooy faw ñu defar nit xam nga dañuy wax ne lu baax ci jàmbaar lay tàmbalee mais ci yafus la yàqoo jàmbaar sëñ baara xuraje day ñëw fekk fi watiir fekk fi àll bu ne dadd lampe torche wala làmp pétrole mu dig lëndëm mu gor njeen ni mu gor njeen di njandi loolu mu jur tey bu nee bustaan fii tey bari boo doon laaj ci biir dëkk bi boo nee bustaan dañ doon jàpp ma nga ca ginnaaw Fass Touré ay xoolal tey fii mu nekk lan la placé nga gis ne ki ko sancit ba mu koy sanc li mu ci jublu woon mooy li sëñ Tuubaa sance woon képp mooy jaamu yàlla ak jëf ju baax jaamu yàlla nag dafay ñaar ibaada yi julli yeeg woor yi baax na mu amal xasana bi dëkkaale ya mën nañoo xam loolu ci seenu melokaan ak seen jëf yi sàmmoon na leen nit ba nit ki mooy mën a dundal kaw suuf ñoom rëyuñu suuf si xam nga da nga dégg ñu ne euh, jëmmi suuf ni mu toll ci àdduna bi boo doon xool ci boroom xam-xam yi yëngu ci loolu am na pàkk boo xam ne terrain boo xam ne un mètre carré bi mën naa jënd nangami hectare ci beneen béréb am na nangam loo xam ne naa jënd nangam am na hectare yoo xam ne tey bu ñu la woowoon di la ko may sax ngir weccee ko sa ñeent vingt mètre carré bi nga yor da da ngay lang bu doon nekk ni muy doxee ci àdduna waaye am na benn cinq centimètres boo xam ne boo yoroon mille milliards boo ko bëggee jënd kenn du la ko jaay loolu mooy tey fee Cheikhul Khadim nekk demal wooyi ka gën a màgg ci Amérique demal wooyi Salmaanul Farisi ñëwal na ko na maa bëgg ñu jaay ma fii sëñ bi nekkoon kenn mënu ko mënul lool kon loolu mënoo koo jëndee ak nangam mooy importance li tax nit ki di ko def loolu daf ci am solo te gis nga développement mi ngi amee ci jàmm jàmm mi ngi juddoo ci bëggante te jàmm te am te jëf ju baax amul ndax sëñ Tuubaa bi mu ne ñeentay juddoo ci jàmm dana da ngay yéene lu baax kon ki gor ab dëkk dëkkal aw nit yéene na lu baax dangay wax lu baax béréb boo xam ne waxtu yàlla alxuraan a fay réer waaye dangay jëf lu baax waaye da ngay taqoo ak ñu ak ñu baax ci àdduna dama bëgg ñu gën a bàyyi xel sëriñ si seen rôle dafa am solo amul benn kilifa boo xam ne tey li mu samp defar ko kooku àdduna ki àdduna tax jóg rek am na loolu léegi tey kii intellectuel la kii nangam la ci àdduna ñaata milliards ngay dégg ñu ne détourné nañ ko sànk ko xañ ko seenu xeet nga gis kook nag day sañcu béréb fi ne tey boo doon seet lii nee ngeen njaboot suñ baara xuro jaakooy am nañ fi ñeneen nangam waaye boo seetee taalibe Sëñ Tuubaa yëpp fi nekk nga xam ne du loo xam ne dañ koy jël ngir ne ñoom seen intérêt boppay tax maanaam ku sëñ baara juru doo fa am ku nangamu doo fa am déedéet te defe naa lii am na ñooñ bu ñu ko féete woon tey jii ku ko laal dégg dara waaye yàlla yàllay kese ja ko ci saanoon ak jëmme jëmmel ko ci jëmmi yàlla ju baax looloo tax mu di ko ki ki ki kin ci tudd nag muy sëriñ baara li tax boo ko tuddee rek nga xam ne benn mandarga lay am fi ne boo ne sëriñ baara xuréja jarut moom la Jaara borom saam jarut nanga moom moom day bi mu ñëwee fekk ay way juróom xam nga sëñ Moustapha dafa ne dangay yokk wala nga bañ a yàq waaye da sos Cheikh Sidi Muxtaar dafa waxoon ne boo joxoñee ne sama maam a def lee joxoñ ne sama bàyyee def lee te fi nga taxaw joxoñoo loo def ci gàcce nga taxaw sama maama def lee xam nga sàmm luñ fi bàyyi yomb na ndax sa intérêt la <laughs> sa bàyyi bàyyee la fi ay tool bàyyee la fi hectare bàyyee la tali bi da ngay xeex ak ñoom ba ñu xàcc sa intérêt la lenn kay mooy lim fi bawoon maa ko yokk sëñ Touba jenn jumaa la fi bàyyi woon 1927 téeméeri jumaa juróom-benn fukk ak ñaar mi ngi Touba sëñ Touba bi mu fiy jógee daaray kaamil ji amu fi woon te bokk na ci lim bëggoon université bi amu ci woon li banaar xuduusu madrasan bi yezalu ada wal ndax sëñ Muntaxa daal ñëw rek ne Touba daal bu kenn dëkk ci dëkk bi wala doomi sëñ Touba ñëw na nangam déedéet sëñ Abdoulaat ba ko sëñ Mouhamadul Mamoun ñang di tagg da ne xamaa madinati Touba zaadaha sarafa wa amana al ahlu wal jiraanu wa nuzula fexe ba aar dëkk bi sécuriser ji fi nekk mais dolli lépp ñaata hectare ngay dégg ñun sëñ Abdoulaat dolli na ko ci Touba titre foncier Touba fan la yemoon bi ko Cheikh Mourou Moussa titre foncier bi sëñ Fallou dem bi sëñ Abdoulaat fu mu dem ba ilaa yawmina hada fan la yëf yi doll kon du ne da ngay yem rek ndax am na kook la muy sàmm intérêt ma man bu ma wóoree ne li naan benn bañ day foog te sama lii bu yàqoo sama mbir yàqu danaa ko sàmm mën naa bañ a doon ak njàmbaar mais c'est intérêt kon da fexe ba ñoom dañoo sëñ baara xuraja dafa sàmm dafa yokk dafa sos boo duggoon tey ci mbakke benn benn jëf ju sëñ Baara Xurajee jëf ju ne jenn ju ne atte na doy ci jëmm nit ci jëf ci dundam te loolu danga naan ginnaaw Maamoor Jaara lay doon am na ci loolu sax ginnaaw ay magam lay doon mu toogee fexe ba jëf lotti sa mbakke wutal borom sam kër def yeneen def yeneen def yeneen ba noppi loola ci ci jëf la nga xam ne kenn ku ku masoon a man a yàpp Cheikh Bara ji ci ay nawle amul jëfam ko mayoon la mu marqué ay apprentam ci yoon wi ngir ay jëf bokkul ak nag jëf ji nga waxaat léegi nga xam ne mooy murit bi doonu murit sëñ bi santaane jëf te kenn du ko ca man mbooleem lu fi tey jii saama nga ne kenn maam Mor ko sëñ lu ñuy wax saamu Serigne Bara Khoureyji ndax da koo moome ci maa fi mag wala dañ doon mirage mi sabab cër wala damay leen napp napp leen doole di ko di ko déedéet lan moo tax saamuk sëriñ baara xure ja sàmm baax na de bañ a yàq baax na de waaye def daraa ko gën nag mu doon su mbib bi baay di sol dong day yàgg day ràpp da ngay fexe dog sa complète bopp yooyu sol ku la seen xàmmee la ca xam ne lii kër du sa mbubb mu bàyyi yaa ko ñaw loolu la sëñ baara def tuubaa gii boo doon wër tey quartier boo tudd saamu nangam quartier sangam da nga naan saam goog sëriñ baara xuree loolu kon jëf moo ko may sëñ baara kon moom xam na li ko boroomam wàccee woon ci kaw suuf waaye ndax dundal na bu doon laaj ndax moom dundal na moom yaayoo na ko de sëñ baara xuree yaayoo na jox temub kiy dundal suuf yaayoo na ko de ndax moom màndargaam feeñ na ca foofu liñ ko fi bàyyee woon it dara réeru ci kon jëf ju baax jooju ku ko am. xam ko dafay wane wa melokaan wu mat woowu muy muy doxe ñooña lañ war a roy ci seen jitte ju réy ja gis nga ku farlu te am yitte dabe léegi nag damay bañ ñu dégg rek dundal suuf gaa yi ne ci xëccoo suuf yeeg ñuy tax ñuy tëj tëj leen ngir suuf yeeg jàpp leen seen tool yi maam yaag ñi tàmbali barbar naan ña ngay waxtaan kat ngir dundal suuf du yooyu intérêt luy tax suufa dund mooy ke cay ne lu muy dund fexe ba defar nit defar as gor defar ku mën a jaamu yàlla defar murid saadi defar ku sàmm defar ku doylu defar koo xam ne yi tax yàlla wàcce jàmb ci kaw suuf day nekk ci moom loolu moo indi woon daara yi tërbiya yi gis nga loo rëy rëy daraja loo bari bari xam-xam loo baax baaxub juddu te amoo tarbiyatu ya lañ bëgg ci yow doo ko def moo taxoon seen dëkk yi nda tàggat boo gé da ngay dégg mag mu naan la bustaan ja wala nga dégg ku ne la misere ja marwa daaru musi misere lañ daan nangame wala nga dégg ne la gorub sàmba loolu la muy lëndëm lëndëm seen xol yi leeroon na ba du am lenn lu leen doon tënk ci li dox li taxoon ñu doon ñu doon dox wala ñu jëm ci yàlla ba mën a am lañ doon wut looloo tax damay xam ne mag ñi kenn mënu leen a séen ban setub sëñ Baara Xuré ji moo am lu toll nii keneen kuy am lu leen lu toll ku imaam Mor Jaar ak ngat di fële tàmbalee Mbàkke lefu fële kuy mën a am lu mel noonu moo tax bu ma gisee ku bàyyi li ñu fi am di jéem a cog-cogal ci loo xam ne du sotti yoon wi dafa am benn nizaam bu mu tënkee ba noppi gis nga ab raay saxaar du ko wàcc influencer nit ñi mën ta nekk sëñ baara xuraja mooy sëñ baara xuraja jeex na lan nga mën a jàng ci moom ab jullit ngoo ab jullit mooy kan tooñul kenn ci làmmiñam tooñul kenn ci ab deram yàqul deru kenn ku gëm yàlla la mooy jullit ñëpp wóolu woon nañ ko ci alal seen alal wóolu ko seen bakkan moo tax mu nekkoon ci diggante yoo xam ne sëñ baara bari na lu réglé ci yoon wi yàquwut grâce à sëñ baara xuraja ni àdduna yàqoo nga xam ne doxkati guddi yeeg jaxasekat yi amoon na sëñ baara xuura jëm moo daan seralkat bi defarkat bi islaahu datil bayni bari na diggante yu xotti woon xët ko ko ñaw sëñ baara la tax loolu yàquwut sëñ baara xuura joo doonoon koo xam ne it mbooleem ñi mu bokkaloon seriñ Touba bokk ñoom islam bi dañ ko nawloo ngir xelam mu rafet xel moo xam ne da koo jëme ci yàlla kilifa daana wéet ak moom guddi mu teg ko ca yoon woo xam ne bu génnee bu jëfee ab naw leen danaan ko yow de ku la gën ku muy waxal moo lay gën a jëf te fekk ka fa jaar sëñ baara ka fa jaar sëñ baara waaye yëmut ca loola moo ne sëñ baara a jëde bu yemoon ca defar mbakke sañ ci defar saam doon xalifa borom saam marqué yi marqué yëpp mais tey demal ci jumaa ji symbole bi gën a rëy bi fi sëñ bi noppee nekk mooy jumaa ji kenn ëpp ko ci garaat kenn ëpp ko ci garaat ci ay jëf kenn ëpp ko ci garaat ci melo waaye nag ndaka mook ñooñ sëñ Tuubaa ñii tey jii buñ gisee sëñ sëñ Muntaxaa ne nañu jàppale taalibe yi ne ci mbënd mi sëñ Baara Xuraje rek moo daan def waxtu añ jot mu ne buñ yàq benn waxtu xéewal te saxaar gi korni wut ndax gan yi sëñ Tuubaa yi bëgguma kenn wàcc di xiif sëñ bi kooku wax naa la léegi ne la lu ma la wax léegi dama ne la sëñ Baara ab téere la paas boobu mën nga koo jàngale kii tëj buntu këram nag ki naan tëjal werandaay yu ñu door añ nag sëñ baara moom gan gi xam ku mu doon waaye xam nga lañ lay bañ ganuk sëñ Tuubaa ñëw Tuubaa daa xiif di tumuraan xoola kook li muy defal sëñ ba noppi nag boole kook nag la muy rëy rëy maqaamaak na muy mel la taali bëgg di mat mat ful la jàkkaraw ndax laa takkun ratban fa tonzara wala yaabisan fa tukkusal nit ki nag wërta nooy ba ku la neex nal wala wow ban di la demal maanaam la muy baax baax la muy woyof woyof ku mu bokkaloon yoon wi nawlante nga ak moom ngir jikkoom nit dana la naw ngir sa wërsëg xeeb la ngir sa jikko fi na am na koo xam ne la muy joxe képp lañ ko fonke mais kenn nawloo sëñ baara nag naw nañ ko ngir la muy joxe waaye naw na ko ngir jikkoom kon mel na ni loolu doy na ci dama waajal yi ñuy waajal dama ko waajal sol léegi laa woote rek na waxtu jot na waaye lii moom ci laa bokk sama méthode la dund naa ko sëñ baara xurajë moom boo doon nelaw it la ci laajee nga man ci te doo abbi mpiri jërul crier feneen di ko dendale kenn ndax sëñ baara mooy way jur sëñ Fallou ngi ni toog sëñ baara leer bi ngay wax rek bañ a abbu sëñ baaram keneen keneen abbu sëñ baara léegi loolu sëñ baara du ko nuy abbal mbubb li yëpp ma jot barki sëñ Touba sëñ baara lo man kay damay wax ne lii man saam laa bëgg dégg nga te yoon wi ab gëstukat laa ci moom xanaa lu gàtt gàtt ñaar fukki at ak ñeent yu ma xam yoo xam ne li may gëstu bari na moo tax léegi-léeg ma gis gone guy wat dama ne ko dalal koo xam ne saa yu xëyee bëgg laa xam ci lay xëy di ci gont doo xuloog moom ndax mën naa xam positif ak négatif ne cel te ginnaaw loo tëb ci daam la ca des day doon zéro day leen kii kenn ku ne maam ji demal sëñ Tuubaa rek ngay puukare woo léegi nag noonu laa xamee sëñ Baara Xuraja ci la ma ca xam xam nga da ngay da histoire li tax mu am solo mooy gis nga sëñ ma Masamba Mbakke gis nga sëriñ Baara Xuraja gis nga ñeneen gis nga ñeneen taxawee nañ ci jumaa ji taxawaay boo xam ne néewoon na ku taxawee taxawaay bi mel noonu ci seen alal ci seen xel ci seen moyen yëpp nag ngir sëñ Tuubaa amuk bëggam waaye xanaa doy na ci ba sëñ Fallu jullee ba noppi lu sajaada bi mu taxawoon sëñ Baara la ko jox muy seereem loolu koy wane na ne kon ay jëfam mat na ci waaye mboolem kook sëñ Tuubaa kum jamonoon teel loola mooy seen jëf ci aw melokaanu mat kon moom sàmm na waaye sàmm na jofal na ruuralut réeralut sàmm nag yomb na jofal sit mën ngaa indi jur gi mais mën nañoo ruur toole jàmbor mën nañoo xiifit kon ñun sant nañ yàlla ñun ñi yàlla féetale ak loolu man fi ne li may dëkk dëkk Touba maa ngi door xam bu sa bi ñuy ñëw laa daaru na ko fan fan mooy bu sa ndax xam naa waa sàmm waa kër sëñ Baara Xura jeeg njaboot Mamor Diarra nit ñu baax a ak noonu xam naa loolu nag li ciy jànge mooy ni Mamor Diarra mën a muñe ñëpp sukk ci ndabul sëñ Touba yi mu naan leen xéwlu leen bu baax seetlu nga loolu bi sëñ Tuubaa dijee ndab li sëñ Maam moo Jaara dana ñëw leen yàq bi man la ko yàlla jox xanaa xamoo sëñ Tuubaa yàqu borom saam ah, moom la ko jox di ku bokk moom li mu bokk ak moom ñoo bokki maam suñu ñaari nijaay bokk ak baayam suñu baay nanga waaye ndey ak baay borom saam képp kon ab yàqama di moo tax mu yaatal ci ñëpp waaw bal leen maq wasalaamaaleykum wa rahmatullah